sans salaatu ala nabi mhm. allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sunu borom dana ko jox dépense boo xamante ne nii day lew léegi nag àdduna bii ñu ne ku yabu góorgóorlu ci sa bopp ndax fi ne dañoo tollu jamono joo xamante ni bu demee ci armeel yi kenn ku ci ne yaa ngi sa téléphone néew bi sax bu ñu koy dugal ci biir bàmmeel bi amul maanaam ñi koy ñi koy ñaanal fan fukki mbokki ñu ngi leen di nuyu di la wax nga taaxirlu ñoo ngi ñëwaat ak yow ci vidéo bi ngir nga jariñu léegi nii comme niñ ko faral di defee seen bi ñu la fiy dalal bu fekkee ne ku bees nga fi ñu ngi lay ñaan nga abonné abonné bi des fay dara gratuit la ñu ngi leen ñaan tamit nga sama ñu boo ko mënee partage ñu ngi leen ñaan nga yónnee kenn jërëjëf tey ñu fas yéene leen indiwel secret bi nga xamee ne moo jëm ci bisimilahi rahmaani rahim wala njëriñu bisimilahi rahmaani rahim comme niñ ko faral di defee ci bépp fànn fii ci seen bi tey nag ñu àndaat kii di soldaaru Bamba ci euh, Moustapha Samb mu dikk indil ñu njëriñ yi nga xam ne moo làqu ci bisimilah rahmaani rahim ak lim yi nga xam ne ki koy def incha allah mën nga see gis ay njëriñ yu wér-wér yoo xam ne ku ko saxoori incha allah mën nga see am. liñ leen di bàyyi ngeen teewlu ko di la wax ne bu fekkee ne ku bees nga fi rek ñu ngi lay ñaan nga abonné ci seen bi. da ngay abonné activé cloche notification bi ndax loolu boo ko defee bépp vidéo bu ñu dugal léegi YouTube dina la signalé ne war na ne vidéo bi dugal nañ ko. duñ def dara lu dul bàyyi la nga teewlu waxtaan wi. léegi it Fatiha moo tax ma ni la géej la. Mhm. maanaam liñ ci xam yëpp buñ ko doon wax du jeex waaye mënoo wax Fatiha te waxoo basmala. basmala mooy bismillahi rahmaani rahim. waaw alaaj Pap mhm. maanaam nee naa la liy yóbbu nit àjjana moo gën a yomb liy li yóbbu nit àjjana mhm. moo gën a yomb li yóbbu nit sawara mhm. saa su nit ki waxee bismillahi rahmaani rahim mboolem benn araf bu ci ne sunu borom dina ko ci dindil ñetti junniy ñaawteef mhm. bindal ko ñetti junniy yiw allahu akbar moom bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim boo ko xoolee fukki araf la ak juróom-ñeent mooy dix-neuf léegi ki nga xamante ni nii heure bu jullee mu toog def dix-neuf bismillahi rahmaani rahim manam bu julle ba pare ba def bahiya saliha mhm. def bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ba ma 19 mhm. zabani yoni yi nga xamanteni ñoy garder bir sawara du len tek beut allahu akbar manam sak sa yo selmalé waaw def 19 bismillahir rahmanir rahim waaw mhm. ak nit ki nga xamanteni ni tamit man nako muy def bis bu jot 787 bismillahir rahmanir rahim dana defar adunam day defar alakhiram ba alakhiram jag mu defar adunam

jaajëf parce que ñu ngi bind né nañu pour nga pour nga def len dank légui léegi mais bon mën ngeen dem ci replay bi après émission bi alors voilà légui bismillahir rahmanir rahim ma 787 bismillahir rahmanir rahim képp ko xamni ne koy wër du bis bu jot day jagal sa àllaaxira jagal sa aduna allahu akbar mok 786 ba tey jii ki nga xamante ni tamit daa xëy dépense jafe ko mu sonn balay am day jafe. looloo bari ci réew mi nag sëñ bi. su xëyee waaw bu jant biy jóg rek na def ñetti téeméeri bismillahi rahmaani rahim. kon kooku warul nelaw ba ba midi. waaw déedéet nelaw ba bët set. faaw mu yow teel a nelaw ba bët set. waaw du maye ak set. lu dul maye ak set mag waru koo def. allahu akbar. sëñ bu mag bi mës naa romb ak kër. Hmm. nit ñi di jooyoo. booba waxtu julli moo jot. Hmm. fajar gi. bi mu demee julli ba ñëw laaj leen lu ñu doon jooy ñu ne ko dafa am ku faatu mhm. mun leen loolu jarul jooy ki jara jooy mooy ki nelaw ba fajar te jógul julli koo jara jooy allahu akbar waaye ki nga xamante ne xëy na jant bi di waaj a jóg bi muy jóg noonu mu def ñetti téeméeri bismillahi rahmaani rahim mhm. ak cent salaatu ala nabi mhm. allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sunu borom dana ko jox dépense boo xamante ne nii day lew léegi nag àdduna bii ñu ne ku yebu góorgóorlu ci sa bopp ndax fi ne dañoo toll jamono joo xamante ni bu ñu demee ci armeel yi kenn ku ci ne yaa ngi sa téléphone néew bi sax bu ñu koy dugal ci biir bàmmeel bi amul maanaam ñi koy ñi koy ñaanal fan fukki lixlaas ak benn bi ñuy def maanaam dañ koy parak parak duñ ko jàng ki nga xamante ni nag mi ngi dund te deewagul alaaji pap kooku na jéem a fexe ci dundam donte benn benn cinq heures de temps lay toog wala trois heures de temps def bismillahi rahmaani rahim douze mille mu wóor ko ni bu ko xasee ba def moom bu deewee day dem ajjana mu defal ko boppam. maanaam mu defal ko boppam yéene yii fi ko daf fi daawu boppam. douze mille bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim ñaata yoon benn yoon sa dund. yoon sa dund ku ko def boo deewee doo dem doo dem safara. gars yi loolu de xam ngeen ne am ngeen jot bi de douze mille. douze mille yooyu noonu la mënee faj aajo. douze mille bismillahi rahmaani rahim. waaw maanaam noonu la mën mënee faj aajo. jamono yële joxe woon naa benn sangat bu garaaw boo xamante ne nii képp koo xam bind ko fukki junni ak nga dugal ko ci siw siwo hmm. def ci ndox gas ba mu xóot suul ko hmm. ba mu mat fukki fan ak ñaar hmm. nga sulli ko sangoo ko heure boo sangoo nga fexe ba wérdi ko fukki fan ak euh, maanaam fukki junne ñaar bu fekkee mënoo ko wérdi yow fukki junne ñaar nga wut ku la ko wérdal fukki junne ñaar maanaam wërsëg bi mu lay jox moom dañuy dem ba jàpp ni da ngay luxus wala dara allahu akbar moom ci douze mille bismillahi rahmaani rahim douze mille bismillahi rahmaani rahim day dindi liggéey mille bismillahi rahmaani rahim day dindi cet douze mille la say bàkkaar allahu akbar am na ci beneen boo xamante ne nii mooy douze mille cinq cent. maanaam da koy suul siiw bi fukki fan ak ak ñaar. waaw boo boo ko boo ko suulee ba mu mat fukki fan ak nga sulli ko ba mu ba nga sangoo ko fukki fan ak ñaar waaye heure boo sangoo bu la neexee nga jël sa xaalis nga xool ku la a wérdal nga fay ko mu wérdal la ko fukki fan. maanaam fukki ak ñaar. dama koy def dama koy def bu sunu borom dana la dimbali ci yooyu. moom ci bismillahi rahmaani rahim. Uh-huh. bismillahi rahmaani rahim nag. Uh-huh. am na ci ay ay ay yooni yoon yoo xamante ni nii lu am solo la. fi ne boo te ni mu ni gàttee noonu tudd ko yomb noonu njëriñ li kenn xamul mu toll. déggoo ma ni la benn araf bu ne ñetti junniy ñaawteef bindal la ci ñetti junniy yiw boo xoolee ñetti junni yooyu boo ko multiplier par 19 day doon mil ci ay ñaawteef yàlla da koy dindil. mu wér del la. mën naa nekk kay. Ah. Mhm. mën naa nekk. ndax ni ngay joxe nit mu di la jàngal alquran bu faatoo maanaam li sëñ Tuubaa wax ni isduhaa u mhm. yan fahu maytan fil xubuur mhm. wa yan fahul xayye wa yooyu jibul ujur mhm. ñaan day jëriñ ki ne ci biir bàmmeel waaye day jëriñ ki nga xamante ne nii moo moo moo mooy mooy mu ngi dund waaw looloo tax nag euh, bismillahi rahmaani rahim moom it buñ ko toppoon fii ba suba moom duñ fi jógee ci la